Des bêtes et puissants puissants et stylés. des soins qui vous ressemblent. Dream. un rêve de crème. Dream. Il a <laughs> Pau Pau illumine chaque jour votre peau et vous aide à préserver un teint plus unifié. puissants et stylés, des soins qui vous ressemblent. Dream. sama jëkkër man maay préféré ndax ay produits yu baara mosul laay toggee dañoo naturel set te baax ci wergu yaram. <laughs> sama jëkkër man maay préféré ay produits yu baara mosul laay toggee dañoo naturel set te baax ci wergu yaram. man bu jën mooy suma plat préféré.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

sama tu bab la kër gi dafay neex sama wujju tubaab la kër gi dafay neex benn mbay ne woon naa la ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk borom toog mu ne mbay jeeg biir la puudaram bu saf kenn mënu ko muñ waxu malaak war a ñam ak mati mbay paaka ñaari boor la kenn xamul fu mu far intérêt rek la jiital saara tubaab italien bi ñëw na ne daawu desi bu laajoon ani du jeex jeexi sama tu bab le Moju wujju tubaab la tubaab bu xam coosaan la sama wujju tubaab la tubaab ci biir kër ga Sara tubaab italien bi ñëw na ne daa wujje si bu laajoon ani du jeex jeexi sama wujju tubaab la xaw ma lan lu waay takku suuf moom dafa metti billaay dafa metti Sara. Bye lan la. ma bëgg ñu dem plage comme mënuma la jot si ci kër gi. waa ñu dem plage ñu yendu foofu ñu waxtaan di retaan. très bien Sarah très très bien wallahi tu as bien dit. merci. c'est une très bonne solution wallahi ici dans la maison il y a des espignons sëy tane. bàyyi ma dem préparer. te ñu dem. ñu dem plage. ñu dem sama xol sedd na. jeex na yow sama nit nga te sama toos nga transitaire bu mag bi yow teraanga yi nga dëkkee nit ñi rek dafa doy. waaye boole nga ko sa xel mu seen la tout le temps yaa ngi may woo di ma xool ci li ma ne. non lolou mom boobu ko jox may bañ cag dugg ma nag kontaan nañ diggante après waaw après incha allah Pembe sa sëngéem gi nga sa sa xam nga léeg-léeg xol xol da ciy baax nga génn dem féexal ko wallaay si soit nga dem plage wala nga dem resto ko ñu daal féexal sa xol plage ak resto kese nga ci xalaat ok mu nekk ni damaa jaaxle Sarah moo ne ma daa bëgg dem plage man ak moom te mbaay wax na dëgg nag. ah bien sûr. mais Ngoné Mbaye ma ci jaaxal. Ngoné ban sens la ci kër gi. moo ma jaaxal. ban importance la Ngoné am ba nga ko jox importance bi nga ko jox amu ko. Ngoné moom moo bële ci kër gi di. dafay am kàddu lii da nga man kay maay kilifa nag. Ah, donc yooyu la problème xam nga lu ma la yëgal. waaw. Ah. sénégalais nga doon ngaak. te lu dagg lu ne moroom ma lay fekki ci réew mi nga dëkk. xam nga ni ngóor na dof la benn xel la boobu kopp ci ne abiyaas la sans moteur ndax xam nga ni ci dof yi président gracier la bokk fu ne ni bu la rayoon da perte loolu de benn xel la. ci nga dëkk nag waxi ndaanaan. ak jëfi ndaanaan rek ci na dëkk wallahi waaw bi ma ni def ni waaw li nga fi wax yépp jaar yoon. Hmm. waaw wallahi waaw. bayil nak man ma ñëw kon def yëfi ndaanaan waaw. non rak tay mom gën naa kontaan ci yow. yalla xam na. Ah, la réaction nak ci ko action. gën naa ci yow. Ibrahima Khalil Diène war na ma fi deux appels ci diiraa li may waxtaan ki auto bi bu ko defé mbaccat du ma dugg. lan la. mooy sëb Père Mbaye Père lañ jàpp dugal ko ci 4x4 bu noir ay bandi ñoo ko jàpp nee nañ joxe 3 millions 3 millions buñ ko joxewul duñ ko bàyyi. il faut yëgee loolu lépp. moom moo ma woo nee na dafa bàyyi bañ dem sawi ñu dem sawi ñooñu mu profité jël téléphone am mooma pour wax ma ko xam nga ni kooku ñooñu buñ ñëwee dañ koy rey. Ah, oh yàq naa mag wuy ñàkk naa mag ñàkk naa mag way ñàkk naa mag wooy sama mag ñi dem na ay waay dañ koy rituel waay ay waay ca rituel yi leen koy boole wu yaay dagg nopp yee dagg te cër yi loxo ci bët yi ay oh dara di leen soxla ay waay waay waay ay rituel la jëlee di leen waay waay waay waay waay waay waay créé kidnapping. Yeah. nel dañ ma kidnapper. Eh? kidnapping. Kat x bu noir la vitre teintée amul matricule musuwaar dañ jël taf ko samay bakkan Yubuma. ma xam nga di ponkal mu ne yow neexoo kidnappé. Deug la. ci jeu de main la. So paree tok ben heure bi Boko téléphone ko ñima kidnapper dañu dañoo di sayuma yu ma dañ koy sacrifier deret am nañ soxla. oo oh, ay sacrifice lañ koy def ay sàmm. damay woo Bali. Oh, jaaxle naa ba bu góor. Oh, ay ñàkk naa ba bu góor dañ koy rituel. Fati. ay waay cëri la ñuy dagg benn benn fës. wuy yaay wuy sama. oo day doon soxla. police ku may wol police. bari ay lañ ko yóbbu woon. waaye dañ koo jàpp. waay waay waay waay waay. Selamat pagi. Kok? kita lah nijaay police polisi dugaan. naa ko tëji naa nyewa ñëwal Ndijaay policier. Eh? waaw ah, soxna si naa def. mais respect. waaw ah, ça va pas. Y a l'un qui n'a pas. sa yaa doon kidnappé sa doom. déedéet du sama doom de sama jëkkër la sama jëkkër. sa jëkkër lañ kidnappé. ay bandi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko sàcc ay bandi. ok sa jëkkër ñaata at la am. sama jëkkër. 40 ans. 40 ans

mo tegal ko ngoyane bolé ci njar ba tax gisugoo ko ba légui set ba tax gisugoo ko ba légui amna nga lay def ay ngay xaar 48 heures maanaam fii ak ñaari fam 48 heures fekkee sa jëkkër ñewul mo wooñu 48 heures 47 heures sax bu ñu woon 48 heures yi man dañu wax baax dañu war a déggoo eh dégg nga wala dégg nga. 48 heures. oke. nga ma apa? waa tey jërëjëf sekarang waa ni yaay Félix 48 heures di di gudd na ni 48 karena saa dama njëkk. man moom 48 apa? dama ko apa kër ma apa? beneen agence apa? ko gisee c'est adjudant Sagna. ah adjudant Sagna. oui daam bi nga doon ci biir léegi. oui. Eh, sama jabaru mag la maa jëkkër ñu bokk ndey ak baay. ah bon. moom xel bi neexul dafa am ay dépression. Hmm. niru na ma ko nag jortoon naa lu mel noonu. Hmm. Hmm. moom jëkkëram. plage la dem. gelu tu babam la andal wa ah bon gelam. waaw. naka jek mani lu mel rek mo ci meuna xew. ok legui sa frère la n'est-ce pas. wa ñu bok ndey bay donc xam na la def. danga hmm. may jox numéro comme ça ma wo te jar ko. si jar na. tu sais pourquoi. parce que femme bi dafa fragile te buñ ko bàyyee nii kaa mën na empirer donc ma woo ko wax moom mu ñëwaat gi dafay neex ànd boo dem fekk boo toog boo dem baa gaañu ñu la ngoone mbaay noo def ba rëcc ngoone dafa mel ni dag maa fàtte ngoon ci maa oublié ngoone nu ma def ba ci nga may laaj waaw mbaay hmm? damaa bàyyi bu ñu jóg taxaw nga daw waaye man dinaa daw ma jóg weñaar seeni loxo eh. waaw dóor leen prise maay ñaar attaqué ma def benn mas Arya, arrière ma def benn pas en arrière dóor yoo une tàjjooy oui Prix Prix oui waa mbaay doo def dal leen jàmm ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar egg si leen ci sénégalaise de l'électroménager ku ne dégg na madame Mané ubbi waat na boutique bu bees tàq tàq tàq waaw waaw ak sénégalaise de l'électroménager da ngay meubler sa espace ba dugg ci boîte vocale rawatina nag boutique bu bees tàq bii nga xam ni li indi ci chambre à coucher li indi ci matériel électroménager li mu indi ci accessoire déco ah. fii lo le soxla ci électroménager amna fi télé smart 32 ba 85 pouces bu nek ak home cinéma waaw waaw madame Mané amna salon ak chambre à coucher yu mucc ayib nek qualité yu Yibaye yi ko fep ci aduna bi rawatina yi ko Turquie yi ko Chine ci qualité ndaxte nak Chine qualité yep fa am sénégalaise de l'électroménager Chess immeuble Mam tu Mbour 1 tableau wetu tu es tout tcherno Abuja Chess 77 557 94 04 77 557 94 04. Illuminez votre peau avec Infiniclear, le nouveau soin capteur de lumière enrichi du complexe 3R qui réduit les taches, ravive le teint et régénère la peau. Infiniclear associe le bêta-carotène à la vitamine E dans des textures hydratantes et ultra fondantes. Unifié, repulpé, satiné, votre peau attire la lumière. Vous êtes rayonnante. clear, l'éclat parfait.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 <laughs> boo demee nag ba guddi gi tey si guddi nga war a daanu si. joué joué héros. waaw. boo ñu nekk ci film yi jantal jantal lu garaaw garaaw lu melal ni ëmb seen mbaa Balla Gaye 2 maa nga mel ne Sa Thiès muy dox maa nga mel ne Boy Niang muy dox ibbi sa yaram mel ne grand boxeur yooyu noonu. garaaw garaaw lu final zoom ak Sony. ak jantam. mbaay man may bandi. bu mag. taxaw. arrêté taxi. dugal leen ci. yóbbu leen ca àll ba. génnee leen ne leen. oleme. oleme. Hmm. ah kon seet nañ de. mbaay man may bandi. bu mag. nit nañ dëkkoon naay. man leen baa di ngeen agressé ti nit. ñu ne ma non non moom père Mbaye. ah dootuñu agressé ti. man laa xam. mais Mbaye ci réew mi. moo ma jaaxal Mbaye man may bandi. Mhm, bandi nga billaay bandi nga bu mag. Mbaye ma jàpp leen foofu dóor leen ba ñu bëgg a dee. dugalaat leen ci taxi indiwaat leen. fi ñu la agressé woon. wallaay indiwaat leen nag. fi ñu ma agressé woon. Mbaye nag. Je ay doomu géwél lañu ndax teranga teranga koy fay. waaw waaw. Mhm. man suis bëri technique ak tactique à part d'aujourd'hui moo fi agression. eh. wallahi ñoom ah, ñu ñu waaf. parole validée. <laughs> ba mais mais la. ah mais c'est mon ami mais on est ensemble man ak Jacques Bauer def nañu formation bu mag ci réew mi. daa mujjee daw bayima fa. déedéet kay. yow mbay, pourquoi tu m'as oublié lan nga faté ma. Amna ben technique bi mu jox cului baria Do xam nga cului. Hmm. cului technique bi ko Jacques Bauer di jox man maa jox Jacques Bauer. déedéet kay. Ngoné hmm. Jacques moo def vingt heures chrono. Je man 72 heures est-ce que tu nga ni Macky Sall Sénégal. gis technique jag jag jag jag jag jag jag jag prise jag investir bu la agression guerre fi agression waaye man dama bari technique ak tactique. est-ce que xam nga ni dinaa wax ak Marème Faye Sall mu wax ak Macky Sall. defal loolu. mu jox la place Antoine Diome ndax mbay da nga am jom. très bien. ngone ñu ngi nan ma seutu sëtu ndela mbay sa sa cëb waaye non lañ may bakke nan ma seutu jox dem ak Mar Saxa ak néegu njëg Birame Yacine. eh waaw Birame baté jox mbay bo defé loolu def lu am solo. deg li ak leer. ko joxe jox ko am jom. déjà. Enfant bien préparé, sponsorisé par sa famille. Allez travail de maman, repas de fiston, bénédiction de Dieu. yow laa déglu waxal damaa yaakaar lii lan la. loolu bee di nga ko xam. lii fa mu jógee ambaay sa jëkkër demoon plage benn xale yi bi bunt bi fëgg bunt bi léegi mooy biir ko mu jox ma ban plage man nga koy laaj ndaw loo woo ma de tayee ngi laaj mbotu génn may fanaan may xëy sangu set ma lan takk yaa ngi mooy tooñ célibataire laa kenn bu ma ni la kaab demé demee ma gis la 2 minutes. bay taxawal deux minutes. bay yow lan la. ci. amo jëkkër do bay ñi am jëkkër intimité bañu falay tu falay yow li ba sa jamm la. yow da melni sama ñak am jëkkër dalaa traumatisé. bu baax ndax danga ma sonal ci biir kër gi. ak ko got mi. duma ko ko wax. dama ni non danga may may rek. danga may may. ndax bu da nga nek ci biir kër gi yaru. séq ak nit ñi jàmm bu boobaa sax nekk ci kër gi duñu ñu sonal waaye dangaa nekk ci biir kër gi di ru mandaat ku nekk nga jaxase ko kon sëy yi moo la war te xam naa boo sëyee doo fa yàgg yow sa sëy bii ngay sëy moom père ñàkk sëy mu ko gën a ndax bonheur kaay ma gis la ndax sa jëkkër ji ñàkk am jëkkër ko gën kaay ah. célibataire laa kenn bu ma yaay fanaan moom ma dama jékk danga koy laaj bureau ku doon laajte faali ngoye ngi eh eh looy yëndu Mana lo yin kai? Yes, la jam. Bai kai. Ni ma. Rante. Eh. Wala. Hmm? Mane nga tok. Alhamdulillah rabbil alamin. Lii de sa yére la. Benn xale moo ko fi indi neen na nga plage. wax na dëgg lii maa ko fàtte woon plage wallaay depuis daaw waaye mais kii moom très bien très bien mbaay Mbaye ba Mbaye Tarba Djinné wallaay waaw Mbaye yow kenn du yow ci même réew déedéet est-ce que xam nga ni mbaay dinaa dellu ca Marème Faye Sall waaw ni ko mu waxal ma Macky Sall. waaw mun na ma la fenkat mbaay man nga fen ah. Eh? Ngone Ngone mën ngay traité de fenkat. waaw. ah mbaay. bon. très bien mais Ngone man lay traité de fenkat. jàpp muy moom. très bien Ngone. mbaay nga nga dem ci ci Marème Faye Sall. demal. gis nga man direct lay def ci président de la république Macky Sall ne ko prési ma la waxon jëlal ngone mbay nga décorer ci nga décorer ko ci 4 avril bi bayiko da nga créer ministère des réew et des i dirigé par ngone mbay jappa yaay bu ñak talibé rew indiscipliné yap sen jëkkeer yi du leen neex ngeen wax ñuko dét deet laajuma la ma nga naan aw consommé lool eh kañ na gu xéss gi ci biir kër gi Sara xana mom tamit dafa démon place daaw en bay ana Sara nga ñam ñam ni waaw waaw jinne be mer rabu ndox sé ba sama xol sedd ah ci la Faye laa demoon borom daar ma lëmbala la. lëmbala may lëmbal man ay noq. Eh, eh, boo nekk munoo bàyyi gaaw. Eh, soo may lëmbala man ay noq yow. waaw yow sa jabar dafa réew de. bàyyi di gaaw. mbaay bàyyi ma. bàyyi li nga def. eh eh, ma de tu risque perdre ta vie. tu perds ta vie. par prison trois mois. trois mois de prison. ça c'est la violation de femme. waaw waaw Mbaye. il fait violation aux femmes. Ngone fais attention ah. Baye. Ngone. Baye gaaw a danga reew. Baye li ngay def. ci prison bi yow mi ngi attention. sa jabar man suma mois yow a vie ngay perte. xanaa bu ngi dem. ma ne eh, man boma tonto ma door la ba ngay bëgg dé. dee. may lëmbal attention. Eh? dama lay eh, ah. jox. risque ta vie. sama yo nek. ci risque sama yo nek ci bay. elle c'est le tubaab. Bay, bay bu attention. dafa bari wax ñu dem. lu tuus. ah yow daal nit ku ñëw da nga am problème. Ngoné dama défendre lu ne. Mbaye woo la ci jàmm june. dimbali ma. yow lan la. <laughs> lan la Ngoné. lan la qu'est-ce qui se passe. Ngoné man du sa morom. pourquoi tu me respectes pas Ngoné. yow dimbali ma danga maa war taxaw ndax sa jeeg laa mu la ci kër gi ba dara dul dara. tout le monde sait que te yow ma respecté wul respecté yow da xamadi. lan la. mbaay lii baa sa jàmm la un deux trois nga sumi sa tubay mbaay lii sa jàmm la ngoone xam nga dag maa yab <laughs> ñu ko toll ni man waaye ni ma mel ci nga naan ma foo dem sum fa sa tubay ngoone man nga naan foo dem sum fa sa tubay yow prévenu li <laughs> sa tubay waaw ngoone kon baax na kon baax na kay <laughs> kii moom dara amul classe amul dara sa jabaar bi dafa reer ba nëb. Demba nekk ñàkk fi sa jeeg dem di ànd ak keneen naan dangay dem place. ñàkk saf-safal kon baaramuso <laughs> ken Pau Pau illumine chaque jour votre peau et vous aide à préserver un teint plus unifié. Vous ne madame Mané ubbi waat na boutique bu bees